def nii du tey la ko bu njëkk a def da dan daan def saa su ne na tey la ko fisal waaye du loo xamante ni tey la ko njëkk a def man mii ci ko wax ni ko fisal ko laa ci laa bokk ndax damay ànd ak moom di dem fu ne di gis ni ñu def ak ni ñu dindi li ñu daj ci koñ dama koy gis gis nga suñu lamp yaa ni leer nañ puso sax bu waddee guddi mën nga koo for grâce à Khady Gueye leneen li ñu mënta wax lépp ci biir am na ci loo xam ne dangay am sa soxla ñëw fekk ko ci nii jëm bi mu fa lii ma mu ko dalee def nag du tey mi mbalit bi sareeti mbalit bi comme ni mu ko waxee rek saa yu mbalit amee ci koñ bi damay dikk ni ko xari génn mbalit maa ngi ci koñ mun ma wol sareet ñu wol sareet ñu boole lépp mu fay ko ci xaalisam leneen noonu mënu maa wax ci mbooloo waaw financement yi fii ko daan indi lu mat cinq millions ba am lu ko ëpp mu toog fii ñu ko benn par benn wa koñ bi ñëpp kenn ku ne liggéey dem indi ku ko jàppale nag jàppale su gor ku ko jàppale mu dem ndax mi ngi jàppale waa koñam ñu jàppale waa koñam lu mu man mi ngi koy def lu mu man ngi koy def xarit gi nit bi jaaxle dara ñëw ci këram gi génn ak loxoy neen kon nag ñun duñu def lu dul ànd ak moom fu mu taxaw ñu taxaw fa lu mu ne ne ca tey ba suba ku ànd ak moom ñu ngi ci yow ku àndut ak moom ànduñoo yow xarit daal lañu sax waa tey dama amal di distribuer ay fourniture euh, fii ci sama koñ comme ni ma ko daan defee rek depuis 2014 di jàppale élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci sama koñ parce que boo xoolee ne ren euh, élèves yu bëri demaguñ école ndax euh, problème fourniture kon nag bu fekkee dañu dëkk si dëkk bi di politique te loo woote sa koñ ñoom ñoo siy jiitu kon ñu xool li nga xamante ni mooy suñu asaka yéene ci ñoom ñu defal ko xale yi dafa nekk ne nag xeeb nañ ko trop mais lu lu lu yàlla yi gën a yokk xéewal yi affaire yi di gën a yokku ndax yamale wuñ ko ci du ñaanuñu yàlla mu yem ci dañu ñaan yàlla mu yaatu ba waa Mbàkke gépp xaj ko parce que biñ koy commencé ñu commencé woon di jënd ay dizaine de kay di détaillé di leen ko defal ba tey yàlla def ñuy indi def ay carton kon dañuy ñaan yàlla xéewal gi gën a yokku ba lépp liñ mën si ñoom ñu di ko yokk mu gën a yokku ci ñoom waaw bu ma dee daanaka jaru ko sax xanaa de ndaxte li ngay defal ñi nga dëkkal ñi nga xamante ne say say doom lañ te ëllëg mën nañ la jariñ lu ëpp lii daanaka loolu jarul di wax parce que nii ma ko médiatiser sax musul am te depuis 2015 maa ngi koy def mais ñoom ñi ma koy defal ñoo ne ma tey doo ko defee noonu parce que booy def lu baax dañ koy wane ndax li ngay def ñun wa koñ bi rek ñoo ko xam mais ñi ci biti xamuñu ko te ñi ci biti dañ ko war a xam ndax loolu mën na motiver xëy ne nit mi ngi dëkk si koñ bëgg a jàppale koñ ba te xamul fan lay jaar pour jàppale leen wala xamul nan lay def pour jàppale leen kon dañ koy médiatiser ba sa morom yëpp ñi nga xamante ni yàlla def na yàlla wërsëgale na leen ko ñu di ko defal ñi dëkkal non yamalewu ma ko ci ouverture kese parce que damay wax ne ñii yéene naa leen lu nekk te ñoom xam nañ ci dara parce que def naa fi ay financement di finance financé ñuy liggéey indi naa fi ay lamp koñ bi leer événement bu jotee li nga xamante ni moom laa am sama doole muy tabaski du korite maa ngi leen koy jox ak yeneen ak yeneen des fois nga ñëw lamp yi aussi noonu des fois nga ñëw fekk kii moom jaaykatu gerte la <laughs> des fois ma ay nit toog ma jëndal ñëpp wala tey ñu toog euh, oto mbalit bi géej fi moom mii moo may wax oto mbalit bi ñëw ne ma dañuy jël ay charrette ñu jël ay charrette ma fay lépp parce que damay ne dañuy politique te nit tamit boo fekkee da nga ànd ak moom di politique bu lu jóg rek nga ne ko def lii yow li nga xamante ni mën nga ko ci sa doole da nga koy defal parce que yow bu feke da nga topp si ginnaawam di tàcc rek xam nga loolu apporté loo ko dara te damay yaakaar ne ki ngay àndal da ngay bëgg à chaque fois mu am ndam te ndam boobu aussi yow da nga ciy liggéey yow da nga ko ci liggéey war a liggéeyal bu baax a baax a baax ba bu jógee tey mu xam ne yow mii fa nga dëkk yaa ngi koy liggéey te ñun dañu nekk ay doomu Mbàkke Mbàkke lañ am Mbàkke lañ bëgg fi lañ juddoo fi lañ yaroo te lépp ñu am Mbàkke lañ koy indi soobee yàlla dañu débuté fourniture yi rek mais yéene nañ leen lu ëpp fourniture yi tey ñaan nañ yàlla dem ba dem ba di leen jox ay bourse scolaire ñaan nañ yàlla di leen jox lépp loo xamante ne matukaay la gi leen inscrire école ak yëpp tey su ma sañoon ku ma jox fourniture dama lay jox instruction dama la ko si tegal mais xëy na nag fii la doole ji yam dañuy ñaan yàlla doole ji yokku bañ mën leneen élèves yi nga xam ne dañuy am ay moyen yu kawe yooyu aussi dama si dool yi dama leen di primer élève bu fi indi moyen bu mag a mag rek dama lay primer dafay am suivi parce que jamono ji yaakaar na jàng moo fi nekk ba jàngul tamit perte nga kon il faut ñu motiver xale yi bu li nga jur rek nga war a toppatoo parce que li nga jur rek du moo lay jariñ da ngay war a toppatoo ba toppatoo la ca biti kon loolu moo tax may def suivi boobu bëgg xale yi gën a góorgóorlu ci njàng mi parce que tey jii koo boo am indee moyenne ma primé la dina góorgóorlu parce que dama koy xool ñun bi ñuy jàng suñu maam bon la ñu daan defal ñu dem bi dugg naif première bi moom daan ma ko man nangoo bàyyi kenn ndax bon boobu xam nga xale xamul dara moom nee ko rek boo defee lii ma def lii day góorgóorlu ba def lu mu man waaw may wax nañ ne sant naa ñëpp di sant monsieur le ministre Gallo Ba di ko sant bu baax si taxawaayam si dëkk bi di sant aussi Morane Gueye moom it di ko sant si taxawaayam dëkk bi lii sax dama leen ko nëbb ndax xam naa ci luñ jóge jamono neexul te jóge nañ ci élection ak yeneen ak yeneen ku ñëpp yaakaar moo tax sax ma nëbb leen ko ma ne man comme dama ànd ak ñoom di liggéey li ma mën ci sama doole naa leen ko defal lii ñoom laa ko defal ñoom laa ko defal defalu ma ko sama bopp ñoom laa ko defal